الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أصارهم إلى يوم الدين ورضي الله عن قطب المكتوم وبرسق المكتوم تاج عارف عارف بالله سيد الأولياء قطب الأقطاب الشيد ومولاي ابن محمد ابن محمد الصريف الفاتمي وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi nuyu mbokki téléspectateur u CAR 24 info yi di leen ziyaara bu baax a baax di leen jéggalu waaye bu ngeen déggee loolu xam ne tey ñu ngi fii ci dëkk bu sell bi di Tiwaawan gi Seex Seydil Xaaji Malick wootee pour ñu màggal guddi juddug Seydina Muhammad xalil la yaaku dia bil sila bil silaawi Tiwaawan yi waaye ala addimu lela wiladati xisbatan ida lam yakun naxwal xaraami udulu moo tax bu ngeen déggee tey jotaay bi xam ni ñu ngi ci dëkk bu tedd bi ñu ngi ci dëkk leer bi yàlla na yàlla tas ñu si barke maam Cheikh Seydil Hadji Malick ak njabootam ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñëpp muy Serigne Babacar Sy mii tëdd suñu wet ak Seydil Hadji Malick mi ni jàkkaarlool tabarakallahu tey ñu war a ñëw continuer ak yéen ci jotaay yi nga xam ne doon nañ ko am ci diira gàmb gi yëpp muy burdatul madeex nga xam ne Mouhamadul Busiri moo ko bind def ko ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nekk fukki bunt ñu jàng juróom-ñeent bunt yi dese benn buntu war ko jàng suba yàlla nañ ko mottali ak jàmm ñi ngi ñaanal xalifa général bi Serigne Babacar Sy Mansour yàlla na may ko gudd fan ak wér ba liggéeyu maamam bii nga xam ni moom la nekk mu mottali ko ca na mu gën a rafet taaliba yëpp fekk ko mu jiite leen ba jumaa ji nga xam ni moom la ñuy préparé pour inauguration bi mu jiite ñu ñu ko ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la ñu koy ñaanale kilifa diina yëpp di ko ñaanal kilifa aada yi bi nga xam ni Mouhamadul Busiri da ci wax tawasulam ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam kon guddi gaa ngay ñëw waaye bunt yaa ngay jeex burdu baa ngay dem muhamdul buseyri ni qaddamtu bi madxi istaqbalu wala istaqilu bihi zunuba umrin mada fi shaari wal qidami muhammadul buseyri nee na sàkkoo na liggéeyal tagg sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam te tagg bi ma koy tagg jubluwuma ci dara lu bakkar yi nga xamni moma dal man mohammedul Buseyri ci bëccëg ak guddii yàlla jaara fa sippi bakkar yëpp ko dañ ci déggé ni tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku koy def yor bakkar bëgg mu raxasu ba set na ngay tagg sayyiduna Muhammad bokay koy bakkar yi day dañ ba jeex tàkk Buseyri ni isqalla daani maa tuxshiru awaaqibuhu ka annani hadyun minan niami neena ba nga xamé ni wékkal na ma اسقل داني بغا خامني ويكل نما ما تخشى عواقده لاغا خامني دوما رافيت لو موك اك موديوم تي موي لان موي بيداو ديكل نما تي موديوم دو رافيت نده توتور فمو ديكي ريك لامي توتورال داي ميغني تا بو ميغني داكاي راتال تا بو راتي داي توتورات بام ديس دي بيداو توتور دي لا بو ديكي بوروم بو راتي ريك دوتول ميغنات مونيكا انني بهما هدي من النعام بو dafa melni man dal suma don misale sama bop ak lima dikkel mi maa ngi mel ne hëd yu dafa nek ci fële muy màkkatal mukarrama xar lu muy raw raw raw wala gilem wala nak bu deme màkkatal mukarrama ci jamana xaj mënatu la raw motax mu jël misale bopam ni ma ngi melni hadyu bo xamni ma nga nek ci màkkatal mukarrama bu siri neena atta'tu atteatu gëja ganiya sibaa fi l xaalatayni wa ma xasaltu illa ala al muni man bu séeri day maa top li nga xamni mom moy mbew tek xale wala mbew tek ndaw bu ne sibian moy xale xale bu tollé ci digg dolem ñett a soxla adina da kay soxla yàlla da kay soxla sheytane da kay soxla ñett yoy yep amna ci ñaar yo xamni pour mu dem ci day yomb c'est très facile day yomb pour mu dem ci moy ban adina ak sheytane mais pour mu dem ci borom bi subhanahu wa taala il faut que mu def li nga xamni mom la borom bi subhanahu wa taala wax te mooy xam ni bal tusiruuna al xayaata dunia wal axiratu xayru wa buqa bu séeri nag ni maa ngi topp mbewta xale ci ñaari mbir yi wa ma xasaltu ila ala al adami wa nadami te ñaari mbir yii dal may topp te mooy addina bii topp ci mbewta xale indi lu ma lenn lu dul ay bàkkaar ak réccu addina képp ku ko jël sóor ko su ëllëgee boo ko yàkkee di nga ci am lu la metti waaye ku jëpp képp ku jël àllaaxira sóor ko su ëllëgee boo ko yàkkee di nga kontaan damay faral di wax ni ñun nañuy jël li nga xamni moy suñu orange money di dépp ci suñu orange money ak suñu wéef yi fan moy orange money ak fan moy wëf bi moy ëlëk yowmal xiyam suñu compte yi nga xamni ëlëk yàlla bu koy vidé ñun la koy videl nañ cey depp ngir bu ëlëgé buñ démé buñu gissé ci borom bi subhanahu wa taala suñu xol mëna sedd ñu mëna contane kontaan bu séeri ni fa ya hasrata nafsin fi tijaratiha lam tastariti diini bi dunya walam tasumi bu séeri nag nee na woo naa pettu pertu bakkan bi nga xam ni da doon commerce lan la doon commerce mu ni laa tashtari diina jëndewul diina bi duniyaa lu dul àddina walam tasumi te mellelewul diina boole ko alaxira waaye di mellel diina ak àddina nee na ki nga xam ne moo perte mooy ki nga xam ne moo jël diina jiinaan naan ak jamono jamono bi ñu toll ni képp ku jël sa xel def ko ci loolu ci diine ak jamono yaa ngi ci pertaange buñ demee ci borom téere bëri di laxdër yi da dégg mu ni ويجب عليه أن يتوب قبل أن يسقط ولا يحل له أن يؤخر التوبة حتى يهديني الله فإنه من علامات الشقاء والخسلان وطمس البصيرة da ngay dégg mu ne la dafay war ci mukallaf bi mu tuub tey bañ a wax ni diine ak jamono balaay borom bi subhanahu wa taala di ko jéppi ndax kat bokk na ci màndargay texee di mooy koo gis mu naan ay yàlla mooy jubal su ma jubalee rek dëgg-dëgg wolof day wax ni yàlla yàlla bay sa tool te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa nekk innaka laa tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yacha waaye nag téewul ni am na ñoo xam ne sawaun alayhim a anzartahum am lam tunsirhum laa yuminuun yàlla nañ ci yàlla musal moo tax Bushayri ni képp koo xam ne jël bi jënd ka ëllëg yowmal qiyaam da ngay perte perte moo xam commerce la te kuy commerce yaakaar li ci bëgg mooy bénéfice waaye bëggoo ci ak pertaange بصير إني ومن يبيع آجلا منه بعاجله يبين له الغني في بيع وفي السلم nee na waman yabia képp koo xam ne jaay nga wala jënd nga aji lan dig bu gàtt bii minu ci moom bi aajilihi ca lu yàgg lële nee na day bayin lahu na la bir ni xëy xëb nun aji perte nga fi bay in sa jaay goog nga jaay wa fi salami ak mucc gi nga ci bëggoon def doo ko ci def nee na képp ku jël àddina bii dund gu gàtt gii jënd ko ak laaxira perte nga benn mag dafay nettali ne dafa am benn waay bu dund lu toll ak téeméeri benn bis doom ji yàlla may ko mu gis ko ci biir gént bu ko gisee ci biir gént mu laaj baayam ci biir gent gi ne waa papa ah yow li nga dund yàgg na de mu ne ko déedéet yàggul de mu ne ko xanaa dundoo téeméeri at ak mu ne ko bi ma deewee day dafa mel na damaa dugg ci néeg boo xam ne ñaari port la ma dugg ci néeg bi rek génn ci néeg bële kon dana xam ne àddina diir bu gàtt la motax buñ ko jëndé al-akhirah ba ila yawmin nazrati bu sheri neena in ati dhanban fama ahdi bi munqatin min an-nabiyyin wala habli bi munsarib neena nak nag su dee nga xam moy mooy man bu sheri indi ka ci yow yow sayyiduna muhammad neena sa kolere day du massa dag fama ahdi det sa kolere bi munqatinin di nek lo xam luy dag la min an-nabiyyi ci yonenti bi wala xabliya déet sa buum gi day bi mun sari mi nekk loo xam ne lii fuñ ci ku ba dagg bay dagg la kon lim ci namm mooy soo yoree ay bakkaar bëgg raxasu ba set demal ci waay te mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa bu seyri nee fa inna li zimmatun minhu bi tasmiyati muhammadun wa huwa awfal xalqi bi simami moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo garantil ñi nga xam ne ñoom ñoo tudd muhammad moo leen garantil àddina nee na képp koo xam ne na la sayduna muhammad sallallahu alayhi wa ëllëg yowmal xiyam yaram mom arawal na safara motax bu sirina fa inna li ñel na ma simmatun ak kolere min hu gu tukke ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam bi tasmiyatihi ci tudde gin mako tudde gin ma tudde lan muhammadan ku ñu sant ka ta moy sayyidina muhammad wa huwa mom sayyidina muhammad aw fa mo gëna matale al alxalqi minde fi bi simmat ci ak kolere bu sirina nee kep ko xamne ku matale kolere nga bo dajje ak yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam di nga xam mo la gëna matale kolere muy nak illam yakun في معادي آقزا بيده فضلا وإلى فقل يا زلة الغدم غيسغا نينا بودي ألق يوم القيامة يا سيدنا محمد كي سك بوم غو دغور غي كي سا تيالال غو فور غي كي سك يرماند غي جابو سي سما لوخو خيت ما من بو سيري دينا وو اك ترخيسو ند لم تي نام موي يا ينتي شفاعته ترجا عني موم لا حاج مالك واخ سو مكو ديفل من بو سيري بيرت تا دينا ترخيس تا سفان منح الشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه xayra muxtarami nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën a baax ñëpp xasaahu sore na moom sayduna muhammad an yuxrima muy xañ araaji aji yaakaar makarimahu ak teraangam yonent bi amul kenn ku mas a ñëw ci moom sayduna muhammad am aajo lu dul yonent bi faj na ko ak nu aajo ba mën a toll lu mu rëy rëy rëy boo taseeg sayduna muhammad dina faj sa aajo moo tax mu ne xasaahu an yuxrima raaji makarimahu sore nag ki nga xam ni day xañ nit teraangaam boo dikkii rek da lay jox teraanga comme suñu góor gi ni mu ko doon defee maam Abdul Aziz radiallahu anhu bu xëyee toog di joxe di joxe di joxe ba këram dépasse du fa am waaye dana fexe ba nit ñi nga xam ne ñoo ko yaakaar ñëw mu jox leen seydu naa sayduna Muhammad jukko boobu la yore woon mu ne aw yarji al jaaru minhu xayra muhtarami wala nga ñëw ci moom di delluwaat lu dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ormal na la ومنس ألزمت أفكاري مدائحه وجدت لقالس غير منتسم جس nga ñiy tagg صلى الله عليه وسلم ديكا واي di بند way di ko bind ci ay سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم sallallahu جابني wa sallam nañu jàpp ni jàpp nañ ci buum ngoo xam ni du dagg te yonent bi moo ëpp kóllëre ñëpp ki président dina la réservoir asam dina la réservoir fe nga xamni moy mooy ba pour neexal la waye ki nga xamni mom moom tax ñu bind koku nak kon boko waxtane lum la wara defal motax bu ni wa munsi alzimatuhu jamana bama takko man busheyri afkaar samay khalat jëf def ko ci madaihuku ci tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo tag tagg bi ñëpp la war waye nak ci anam biñ koy tagge tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam sidil haji malik wax na ni dañ ko wara selal ndax kat ki ñi tag amna fo xani bo fa tolle mom ci boppam day ñëw reservoir la mom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam waye yor say tabala wala nga yor say misik di ko tagge yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gaa yaa ngi tagg yonent waaye rafetlu wuñ ko li ñu rafetlu mooy ki tagg yonent bi di way yonent bi sallallahu alayhi wa ci ay abiyat wala ci loo xam ne moom moo ko wajadtuhu li xaalisin xayra multasimi nee na lu dul ñëw naa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk fa wurus woo xam ni wunu xacc la wu sell la te boo rëcc ba ilaa yawmi nazrati mu walan yafuutal ginaa minhu yaddan tarabat in xayyaahu yumbitul azhaara fil akmi gis nga yunus bi sallallahu alayhi wa sallam bo daan am soxla comme ni ma ko waxee woon sànq ba ñëw ci mom da koy saafara waaye bu la rombe te xamne da nga am soxla am yitte ju la jaaxal te waxo ko ko sax dina la leñ lëñbët làmbatu la làmbatu la ba xam ko safara ko mom la bu seyri ni walan yafuta du fat al ghani yu aji kooman gi minu ci mom mom sayyiduna muhammad yaddan loxo bo xamni tari bat dafa tumranke moy loxo bo xamni amul dara bu seyri ne na bi du ko fat innal hayya muni nak bo xamul lol day ndaka taw yumbitu dana saxal al azhar fulur fil ukmi ci kaw ay doj gis nga doj limi waw waw parfois da nga dem ci ben xeer nga fekk fa ab gantax gu fa sax neena gantax gogu ni mu def ba sax ci kaw xeer yi ak xeer bi ni mu ci waw ba saxal gantax gi yunus bi sallallahu alayhi wa sallam moko gëna labir a ci ak dimbali ko xamni da nga amone ay difficulté muni nak walam urid zahirata dunya lati aqtaat yaddan zuhayrin bi ma asna alal hërami gis nga kaab ibnu suhayrin moom moo way yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye la jiitu muy way yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jàpp yonent bi di ko xas ba yonent bi déclaré saxaaba yëpp kaab ibnu suhayri ku gis na nga ko rey kaab ni ah comme yonent bi nee na ku ma gis na ma rey te moom lu mu wax yàlla ko waxloo te bu ko waxee rek saxaaba yi ku ci mel ali wala ku ci mel na omar ñooñu nga xam ne danoo tàngoon buñ ma gisee daañ ma rey kon daal lu ma war def amul lenn lu ma war a def loolu mooy madaxu yonent bi sallallahu alayhi wa gis nga Kaab jël xalimaam ak fooyam di tagg yonent bi di tagg yonent bi di tagg yonent bi di tagg yonent bi ba jàkkaarloog Seyduna Muhammad ñëpp yaakaar ne bi da koy dóor ñu naan yonent bi dana ko rey yonent bi ni déedéet taxaw leen bàyyi leen Kaab di tagg di ñëw di tagg di ñëw ba yonent bi simmi manto bi mu soloon solol ka Kaab ibnu Suhayr nee na Kaab ni yonent bi waroon doge ak dundam taggin wu rafet ak wu baax tax yonent bi bàyyi ko jël euh, yëreem bi nga xam ni moom mooy manto solal ko ko manto boobu moo tudd burdu moo tax ngeen dégg sëriñ Mansour borom daara ji borom turaay bii daan wax ni burdu day al bur atul lañ ko waroon tuddee ndax Kaab ibnu Suhayr moo way Seydunaa Muhammad ba Seydunaa Muhammad dind mantoom jox ko ko waaye Muhammadul Busayri wayul yonent bi ba yonent bi dind manto jox ko waaye dafa way yonent bi ba yonent bi feeñu ko Lola la bu Seydi jël jafan jëfandikoo ko mu melni ni 9e chapitre fi la yam tombel nak fi bu don waxe def tawasul ci sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyengenyan ñi ngi ñaan yalla yalla bu gamb gi nek suñu mujjeentel gamb di wax mbokk jam, yalla na ngeen départ ci jamm ñew ci jamm fekk fi jamm fu ngeen jóge ngeen bàyyi fi jamm te bu ngeen di delot yalla na ngeen delu ci jamm di ñaaxaat ñi nga xamni ñoy indi nit ñi nañu dal def nank daw nank tiwaawul sorewul te Tiwaawoon fii xel yëpp ni li mu tayaamili dëkk boo xam ne nag boo fay ñëw ñaan nga fay wut si ña nga fay yóbbu da ngaa war a ànd ak ñoom dal fan yee ci ginnaaw déggoon nañu benn góor mu ni góor gii tëdd di sëriñ Babacar Sy waxoon na ni ku ñëw ci bërëbam bi na nga ànd ak yar te sëriñ Babacar Sy nag yasiddu alayna aqzatan wa huwa xaaibun fa akrim bihi min xaaibin wa huwa fil xijri sëriñ Cheikh ne na sëriñ Babacar Sy dafa nelaw sëriñ Abdou ak sëriñ Pape di jooy mun leen lu ngeen di jooy xanaa góor gi ngeen di jooy bàyyi leen bañ denc ko bu ngeen dikkee ci salle bi naa leen ko wan Serigne Cheikh nee na sëñ Abdou ak Serigne Pape Malick continué di jooy mu wan leen góor gi mu toog ci fauteuil bi kon bu sëñ Babacar Sy ne bërëbam bi nañ ci ànd ak dal bu ñu dikkee nañ ànd ak dal man zaarahu bi salimil qalbi naalan mu dal fas al bihi kullama taraahu yardaahu Serigne Mansour dafa ni képp ku ziyaare si sëñ Babacar Sy di wut ak ñaan lépp loo ñaan yàlla dana la ko defal ndax laaj ko gaa yi nga xam ne ñëwoon nañu ziyaare si sëñ Babacar Sy kon li ñuy wax mooy sa force si nañu daw nànk indi clients yi si jàmm waaye clients yi nañu comprendre chauffeur si yàlla na ñëpp am jàmm gàmb si si jàmm dellu si si jàmm in uriidu illal islaaha ma stata'tu wa ma tawfiiqi illaa billaah alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh